Euh, sama waaja Fallou Niang borom Maroc taal bi sëñ Fallou bi tey moo tax ma solaat blouson bi sax macha allah gis nga blouson bi ma jox keroog soloon naa ko mais tey faw ma solaat ko ñëw ak moom Pikine nañ dem. ñun fi def ko doon xaare mais moom mu def ko xam ne seen rakk la lii yow ban yëge nga ci am. non macha allah acte bu noble la man c'est la première fois sax mbëri woote man ma ñëw ndax Boy Niang dafa am yëg dafa jël téléphone am bi su guddi ma tey maanaam ñun mbëri ñoo daje fii quoi. wax li nga xamante ni moo ñu metti wax li nga xamante ni moo ñu neex xam kon nag dañu ñaan yàlla sama borom rek ñu commencé ko bisimilahi rahmaani rahim terminé ko ci alhamdulilahi rabbil alamin lépp loo xamante ni wax na ko fi rek wax nañ ko fi yaa ngi dégg gouvernement bi président Macky Sall ak gouvernement am ñëpp ñoom ñoo xam ñoo yor seen idée ñu xam ne ñun bëri ay doomi Sénégal lañu ñu xam ne ñun bëri te li yàlla yàlla wërsëg ci làmba yi doomu aadama yi lañ koy bokkal kon nag ñu ngi ñaan bu baax a baax a baax lépp loo xam ni waxtaan nañ ko fi rek bu soobee yàlla moom président Macky Sall mu nangul ñu ko incha allah rabi ndax vraiment lamb ji instant bi xam nga si li gën a yor ci la bokk ndax boo xoolee affaire immigration clandestin bi euh, mbër yu bëri dem nañ bëkk yi mbër yu bëri ñii bëkk nañ dee ñii dem nañ Espagne ñii dem nañ fu nekk lan moo ko waral lamba ji téye bañ ko ubbi te vraiment loolu war na mën a ñàkk waaw buñ ubbi lamba ji mbër yu bëri waaw loolu mooy secret bi. kon mbër yu bàyyi la nga dem toog. am benn problème da ngaa bàyyi lamb temps mënu ma bàyyi bëre soo ma xoolee kay li man bàyyi naam bàyyi ma ah, man de ay nen léegi nga moom li koy wax rek yi ma ko xamal ak yow du ma leen ko wax ci ay interview ndax man ñu <laughs> bi fii ci Pikine lu ko waral ah, mooy li nga xam ne moo yëngal àdduna bépp feebar ba pare ñu xaw a tëj suñu sport nga xam ne mooy sport national fii booy ñaa woote fi ñu teew ñëw di déglu question yi mais tam war a ne Franc maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay di la ziar. teewaayu Franc tey Pikine Boy Niang woote ngeen teew. waaw démb laa laa toog ba Papa Sow woo ma ne ma Boy Niang moo ko woo ne ko dina bëgg fii suñu teewaay quoi ci conférence de presse bi après Papa Sow ne ma comme defoo dara nañ xëy dem quoi ñu ñëw mais aussi tamit c'est normal ñu teew fi parce que suñu nawle la ñoo bokk liggéey. mu mel ni yow ci mbër yi encaissé xaalis nga war a bëre di xaar mu mel ni xaar bi metti na. waaw métti na ci ñun métti na ci ñeneen ci monde yëpp ah yëpp la métti mais aussi tamit boo xoolee yeneen sport yëpp ñu ngi dox nañu xool lu ñu arrangé affaire bi ñu bëri ah. ñu bëri Babacar oui. arrangé ko ci nan maanaam. maanaam tey dañuy jël ay mesures de barrière Babacar boo duggee ci boo dugee ci saab da ngay tax max gel dañ la koy jox nga diw ko sa loxo yi bu ñëwee boo toogee ni beneen séer bi ñu sote ko kenn toog noonu muy am muy am distance lamb yëfu noobul la te Babacar kenn ñemewu ko. doo ci dee di dem di dugub dañu xool nu mu rafetee ñu ko noonu. ñu nu mu rafetee waaye. kon yow huis clos bi gars yi wax. non huis clos moom man gaw ma dina am quoi yaakaaruma parce que aussi tamit Babacar mënoo def sa investissement xaalis. ba pare supporter du dugg te dina am ñu taxaw sa ginnaaw pour financer la. loolu mooy question bi. bu fekkee loolu dina am promoteur bi dina si dina si dina si gis boppam ñu a ça dépend ci promoteur bi loolu. yow sa combat moom waa Vox Arena ko tëgg waaw. yaa tay seen deux waaw loolu dëgg la seeti naa ko ndaayaan moom lu mu wax dëgg la mais xam naa dinaa ñëw nga tontu ko waaw boo ñëwee xam nga tontu du forox waaw waaw boo ñëwee rek amul problème du seetaan nga ko incha allah dégg nga wax dégg naa lu mu di koy ñaanal jàmm bu baax di la ñaanal jàmm aussi di nuyu grand bi ah ziar moo na mi loolu la yàlla dogal baa xam nga jàmm sant naa bu baax a baax alhamdulilah yàlla na sant yàgg amiin incha allah euh, tey booy ñaa boo xam ne doomu Pikine la bari adversaire ci adversaire loolu ci làmb mu woote làmb nit ñiy coow ubbi war naa ubbeeg waratu ubbi moom tey mu xëy woote lu mel ni ne conférence de presse boo mais ko yaatal pour mbër yëpp ñëw ñu waxtaane làmb pour défendre làmb hmm. acte bi booy ñaa def lamin noo ko gisee rafetlu ko rek Babacar dama ko rafet lu ko ko ñëpp rafetloo doon ko xaar nag ci yeneen mbër yi waaye nag VIP la comme ñëpp war na mën a woote tey mbër yëpp dagg seen yitte ñëw balaa may ñëw sax ci ci geste bi damay xalaat ne tey mbër yu bari duñ teew te pourtant dañoo waroon teew parce que boo Niang xeexalul moom kese xeexalul Tapha Tine mu war a bëreel kese mais lamb ci boppam lay kaasal comme niñ ko gisee ci Tapha Mbeur tey mu xëy def benn sortie kaas ak yenn mbëri ñoom ñoom ndongoloo ci ñoom lañ ko gën a séentu parce que ñoom ñoo gën a ñoom ñoo gën a am relation ak ak ak état bi mais am nga mooy nekk benn état xam nga mu ànd kese la ragal boole maa ne kese la ragal tey ji état su fekkee ne mën na am Boy ñaa ak képp ku mu jege mën na am Modou Lo ak képp ku mu jege ñoom ñaar ñu ànd sax du leen arrangé mbëri ñoo war a xam loolu tey su ma la la déggee nga wax dafa mel ni kon ñoom est-ce que du kon am na ci ñoom ñoo xam ne defuñu leen war parce que boo xoolee ay ay Gris Bordeaux ay ay Balla Gaye ay Eumeu Sène ñoom ñooy ay magu Boy Niang ñoom est-ce que kon de est-ce waroon taxawee taxawee nañ ko ba Boy Niang xëy lii loolu Gris Bordeaux lañ ciy wax directement parce que moom mooy président des lutteurs en activité moom mooy seen président lii boo ñaaw def moom moo ko waroon def bu nekkee benn bombardier wala benn Balla Gaye mën nga ko layal parce que ñoom ku ci nekk def nga nga sorti sax wax ci ba Siteu wax na ñooñu Gris 2 wax na Gris 2 wax na waaw seetaan naa ko ñooñu tey maanaam seetal seetal nañ seen bopp mais bi gënoon am impact mooy Gris Bordeaux dajale leen ñoom ñëpp Balla Gaye ñëw Modou Lo ñëw Bombardier ñeneen ñeneen maanaam ñu war a bëre sax ñëw boobu moo doon ëpp solo mais lii nii tey Boy Niang def rafetlu rek bu rekkee geste bi booy ñaa def moom dama koy rafetlu rek di ko ñaanal mu ko dañ ubbil ñu suñu làmb ji Babacar waaye dañoo war a ubbi làmb ji la ñoo maar dañoo nam reportage tonton président Macky Sall waaw te jëluñ suñu làmb ko te a séeré euh, loo xamante ne sax man sama gis-gis la woon mooy yu ndaw yi ñu bëre en comme ñoom seen événement ku nit Serigne Ndiaye soo ko sim ñu bàyyi leen ñu bëre Gris 2 ak muy bëreel ñu bàyyi ñoom Franc ñoom consort boobu ñu bëre mbëri mag xaar parce que mbëri mag yi moom kenn mënu leen a naan par exemple vingt deux mille places euh, ah. arène nationale nga ne onze mille lay jël ah, day métti ci promoteur waxu huis clos ñu ngi koy wax tamit mais mënul nekk kon yow huis boo ci paree dellu loo rab. Ah, loolu dugubu waaw kontaan ci yow. maa la gën a bëgg. mais combat bi egg na presque boobu yaa ngi ci ay préparation uti gàllaaj uti nangam uti nangam mën a ñàkk comprendre nga moo ko yëgee bon xam mbër bu bëree bu demee ba mu des fañ yooyu noonu. mooy yoratul ñaar dërëm. waaw mais nag yàlla nag moo yor ñëpp nag gémmiñ gu bu ubbi rek dina am nu ci def ñu sant yàlla rek mais tamit métti na nag métti na ba si métti yam financièrement Papa Sow métti na ku ne xam na ko comme ni nga ko waxee mu mel ni yéen mbër yi Père Max wax na ko sànq yéen li ngeen di daj ci coono sax est-ce que gënu ngeen a metti li mbër yu ndaw comme ni mu ko waxee sànq. waaw ñun xam nga gars yaakaar mbër mi sa nit la sa dëkkandoo la sa am di dama am malade dama am mariage dama am njënd dama nangam li ngeen mën def mooy munoo gàntu nit ki di nga jox rendez-vous soit la nekk ci yoo nga jox ko toog wa ilaa nag mooy li Max wax rek nga fey téléphone bi daw laaxatu moo fi nekk amul leneen looloo fi nekk quoi comprendre nga mais nag yàlla baax na yàlla moo yor ñëpp yàlla moom mooy faj soxla yëpp quoi. tey bu ñu gisee tamit image boo xam ne Sénégal yu bëri nañ ko rafetlu Papa Sow toog Siteu toog Baye Mandione Boy Niang Eumeu te yéen ñëpp ku presque mën nañ ne laale ngeen mel ni mbër yi kon est kon li ñu wax ñoo war a bokk cause bu ñuy xeex daa mel ni tey loolu ngeen wane. intérêt commun bu jotee rek dañuy dafa soxla te lii wax moo soxla maa ngi koy waxtaanee keroog rek làmb moo soxla ñu nekk benn mbër mi promoteur amateur bi yëpp nekk benn benn say bokk li ñuy défendre li ñuy défendre mooy lan intérêt làmb intérêt làmb mooy da nga ciy gis sa bopp kay gis sa bopp gis boppam na làmb yëpp boolo nekk benn bu ñu waree bëre ñu bëre. seen président Gris Bordeaux moom ñu bëri am na ñoo xam ne dañ jàpp ne lii moom moo ko waroon jiite lan moo tax loolu ba tey amul parce que laaj naa Modou Lo parcelle mu ne ma déggante naa ak Gris ñu xool tey ba seen rakk ñëw def ko muy Boy Niang. waaw comme que Boy Niang def na ko rek baax na nan ko def rek moo am solo quoi. nan ko def rek moo am solo Boy Niang def na ko ñun rafetlu la bu ko defee tamit pour intérêt Boy Niang wala Papa Sow pour intérêt ñëpp la man bi ma ko waxee démb ma xool nekk lu baax ma ne ko man maa fay jiitu te maa fi jiitu aussi tamit ah non loolu man moom ci ñi fi njëkk yàgg Tapha ah, ak Franc Goros man luy defar laa si laay nekk luy defar wax bu ñuy wax lu baax maa bu ñu def lu baax maa ngi ca bu leen amee nag ma nekk ma taxaw ne li may teg sama tànk dama koy xam aussi du ma dugg ci yoo xamante ne tamit après da ngay deg nangam nangam moo tax nag booy ñaal initiative bu mu am wax dëgg yàlla képp kuy gor rek war nga rafetlu lii. lambi huis clos. lambi huis clos waaw mën na nekk sponsor dinañ ñëw. sponsor dinañ ñëw. sponsor bu ñëwee rek mën nañ ko huis clos box bi box bi huis clos la. box bi tey ñooñu ay milliards leen fay box benn combat Joshua. dañ koy fay milliard benn koy fay dañ ko fay milliard day fay ko milliard. sa adversaire Siteu gis nañ ko fan yii def na vidéo bu am solo tey waxaat na ba presque jooy na. mu mel ni moom tamit moom taxawaay bi mu amee même moom parce que moom sa nee na waa waxatu sax làmb moom li muy wax mooy tey jeunes yi ne Sénégal am problème mu liggéey. waaw yëg-yëg rek xam nga moom nit boo jaaree ci ci ci ñàkk boo gisee ku ñàkk sa yaram sa yaram day daw. ba tax na daal boo xamee jafe-jafe daal maanaam jafe-jafe boo ko xamee boo xamee jafe-jafe ba génn si gis ko nekk da ngay xam da ngay xam ne lii métti na moo tax nag moo xam naa ne crise de kër boobu ko jàpp mais rafet na président tey moom mi jëloon décret loo koy wax parce que moo jëloon décret arrêté lépp waaw président Macky Sall koy wax rek mooy bon nañu yolomal ba pare accompagner ñu nañu accompagner yolomal ñu indi sponsor ndax loolu bu ci xëyoon du ci gont bu xëyoon ndékki ba ndékki ba pare balaa muy añ sponsor yëpp signal ko ne ko ah waaw ni day nangam nangam mu sotti président CNG bu bees ban message nga koy yónnee moom tam Bira Sène ñu naan ko bienvenue ñu koy wax na daal jàmm ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam ci li ñu ko jox dada mi ngi doog a toog na ko ñëpp ñaanal na ko ñëpp jàppale ba liñ ko dénk daal mu réussir ndax bu échecgee ñu ñëpp ay échec waaw Vox Arena ñëw na tëgg sa ay rak rawatina ñoo bokk léegi Garga 2 Franc yëpp Equivox moo leen jox wala boog Vox Arena moo tëgg seen combat yow yaa ngi wax Jami Kay double nationalité waaye yaa double nationalité. lu tax loolu. ah yow ngay voyagé rek yaa ngi naaw rek. <laughs> papa est ce que voyage. yor mais nag la quoi Vox Arena muy loo xamante ni kuy jàppee lamb la. bu la jëlee nag nee na kaay Cheikh Omar yaag Cheikh Omar wala Cheikh Omar dem na kaay def na li ñu war a def. dalal jàmm yal na si yàlla yëkkati ba nga yëg ko. waaw kontaan si yow ana père. dafay na fi di baax rek.